ñaan rek yalla def ci rew mi jam ah, kuy ñaan mom sañ nga ñaanal ki la yegg ndax ku la mom da naka jaraw ko ñaanal ku la yeggut jaraw ko ñaanal ku la yegg mom jar nga ko ñaanal kon ki ñu yegg yalla nako yalla defal Limu bok ci rew mi yalla nako ko yalla defal te mu jignu te nu jig ko itam te benn jafe-jafe baña am Euh, yàlla def lépp ci jàmm ak salaam. Euh, benn ay bañ a am. danga koy ñaan ci kattanu yàlla mi nga xam ne moom moom lépp yàlla na ko yàlla def ki ñu yëg ak ki ñu jàpp. yàlla na ko ko yàlla jox yàlla moo yor wur yàlla na ko ko jox ci barke bés bu tëdd bi ci doole seen Ismaïla xam naa lii ma ci wax sax waxuma ko woon dama njaamoo. yàlla waaye nag. Euh, Wet ñaan ci yalla mo gëna mo gëna am solo wax ci public. amna am na benn bu mag bo xamné ne euh, bi muy départ di dem ci kilifa ci fi man la ñëkke ba mu ñëwé dafa wax né man sax wóotuma ku far ak man ak ku faru dak man waye demay war kilifa rek na ñëkke fi yow xam nga koku <laughs> képp koo xam ne bu yoree nguur gi di ma xeex yàlla bu mu gàññe te loolu moom ñeme naa ko wax fu nekk yàlla daal maa ngi lay ñaan képp koo xam ne bu yoree nguur gi di ma xeex bañ ma jàppale ci liggéey bii may liggéey suñu Ismaila kum mën a doon yàlla bu mu gàññe képp koo xam ne bu ko gàññee jàppale ma ci liggéey bii yàlla na gàññe waaye loolu sañ naa ko nag <laughs> du dëgg